ngeen ci ànd ak seen mbokku Mbacke la ginnaaw bi ñu santee suñu borom subxanahu wa taala ci xéewal gim ñu may bañ bokk yeewu ci jàmm ñoo ngi koy ñaan mu ñu bokk yandu ci jàmm ñoo ngi amaan mbégte lool ci dellusiwaat ak yéen ci jotaay bi di leen ci ndokkeel bu baax di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di ñaan borom bi subxanahu wa taala mu boole ñu sàmm. di ko ñaan mu defal ñu tawféex defal ñu jàmmi àdduna defal ñu it suturos àllaaxira ñoo ngi ndokkeel bu baax soppe yi ànd ak ñun ci jotaay bi yépp moo xam ñu ne ci biir réew mi la moo xam ñi nekk bitim réew di jégalu bu baax léeg ñu indi waxtaan woo xam ne jaaroon na fi waaye nag bind buy am bis bu set moo noonu ak téq-téqi jamono yi rek léeg ñu baamu waaye ñoo ngi leen koy jégalu bu baax a baax ndax yitte ji ngeen di jox jotaay bi bu ñu sañoon bu ngeen ko jàppee rek dégg bind bu yees di ci jégalu bu baax a baax ñaan suñ boroom mu boole ñu jéggal xam naa mi ngi noonu rek kulim juum waaye ñoo ngi bég bu baax ci ànd ngeen di àndee ñun jotaay bi ñëpp rek tey rafet lu ñaan yi tey rafet lu ñaan yal na yàlla nangu ñaani yëpp. soppe ya nekk ca hôpitalu Pikine tey woy liggéeyandoo ak suñu jigéen ba suñu xarit docteur Anna Dia ñoo ngi leen di nuyu ñoom ñëpp jël nuyoo bi teg ko ci loxoom mu nuyul ñu soppee fa nekk yëpp ñoom ma madame sàmbag mboolem ñi nga xamante ne ñoo fa nekk tey ànd ak ñun jotaay bi def ko muy seen jotaay yi wétal yal na yàlla barkeelal leen seenub liggéey soxna Adja Buya maa ngi lay nuyu ak Adja Buuba mu mel ne dañoo war a waxtaane lu jëm ci wàllu responsabilité ni nga xamante ne noonu la ko lislaam gise ak xeeti responsabilité yi ñu indi ci lu mat ñett muy warteef yi nga xamante ne day war nit dafa am yoo xam ne day war nit digganteem ak suñu boroom ak warteef yoo xam ne da koy war digganteem ak njabootam ak warteef yoo xam ne da koy war digganteem ak société bi jamono ji ñu nekk ci ay bis gi bu jeexee rek ci la ñuy def li ñuy wax wate maanaam ñoo ngi kon ci fan yi nga xam ne mooy fani élection di jongante goo xamante ne aw nit ci réew mi ñoom lañu tànn ne leen yéen ñii am ngeen sañ-sañu laaj réew mi ñoom ñooñu nag ñu ngi wër boobaak léegi ngir won ñu seen bopp ngir ñu xàmmee leen ba mën a tànn ci ñoom ki nga xam ne moom la ñu tànn ne ko yow daal yow lañu bëgg a dénk suñu réew ci wàllu njàng yow lañu ko bëgg a dénk ci wàllu faju yow lañ ko war a dénk ci wàllu atte ak ya ca aju yépp nga xam ne bu suñu borom defee taw féexam loole moom lañ ciy laaj ay résultat ci sabab yi nga xamante ne moom lañ bëgg mu sabablu ko mu mel ne responsabilité la nag ci nit ku mën di doon réew mi mu dëkk mu yéene jàmm di am ci réew ma gannaaw ba mu yéenee jàmm am ci réew ma muy dox nag ci loo xamante ne day tax jàmm am fa di waxit wax joo xam ne day tax jàmm am fa loolu mooy jëf ak wax yooyu dañ koy sabablu ci wàllu jàmm waaye kenn ku nekk xam fi ay àqam tàmbalee ak fi nga xam ne foofu la ay àqam yem loolu suñ boroom da koo mooñe àdduna ci anami yépp moo xam ñun fànn gi nga xam ne ci lañuy ñuy gën a xaar suñuy wax te mooy wax ak nit ñi ci daara wax ak nit ñi ci lislaam ndax léeg ma ne bu fekkee kuy def pronostic di jàngat xëy na mbirum politique wala mbirum àdduna ak yu baree bari mënees nañu cee bañ a déglu waaye nag am na ci làcc woo xam ne léeg-léeg ñu ne ñu lii moom buñ ñu waxee duñ ñu lu ngeen ci wax waaye léeg ñu ne ñu lu ci yàlla wax loola nag daa mat waxtaane boo seetloo nag ñu bari ci ñi ñuy jiite. ñoom réew mi ñu dëkk xeeb nañ ñu ñun ci ñu nekk seeni dëkkandoo koo xam ne nag bëggut a dëkk cim réew ba noppi bëgg koo jiite nga xam ne moom am réew daal président rek la fa bëgg a nekk waaye su fa noppee nekk président moom bëggatu faa dëkk <laughs> xam naa loolu moom lu xorom la lu mat xool la ndax man daal réew mi moom ngir ma dëkk fi damay nekk président waaye ku fi noppee nekk président da ngay tuxu da ngay dem bëggatoo fee dëkk yow mi nga xam ne nag mu neex ak mu naqari yëpp fi nga dëkk boo moytuwul mosoo génn dëkk yi ci biir réew mi sax mosoo koo matal mosoo gisu frontière li nga am akas néew fi nga ko amee te itam fi lañ lay e, ñi nga ñi nga am akas néew te fonk leen nit fi lañ nekk bañ denc leen fi yow sàmm réew moomu sa responsabilité bu rëy rëy la kon taxawal ci déglu bu baax ñi koy laaj kenn ku nekk ku man di doon yitte jaag joxoñ bam joxoñ te muy joxoñ buy amal njariñ réew mi nga ànd ak moom ci loola jàppale ko waaw jàppale ko nag nee naa wax ji moom xaw tuuti kon ma ne lim ciy jariñ bariwut jëf ji da ko cee ëpp njariñ jëf ji it ja ca ëpp njariñ du weesu bu dimaasee ak jàmm nga jël saw carte dem ca fa ñuy watee jël juróomi këyit yañ fa teg yépp di juróomi candidat yi li tax ñu wutal la ak mbañ gàcce gooy dugg mooy bañ nga gàccaal sa bopp waaye bañ itam nit ñi xam ki ngay wateel moo tax ñu ne la wat moom lu secret la da ngay dem dugg ca biir jël kayit wa ngay jël dugal ko ci biirub enveloppe waaw dugg nga ci biir doyut ñun la defaat ko ci enveloppe bi nga dugal ko fa ñu tegal la fa beneen boolu mbalit boo xam ne ñeent ñi nga defut ci enveloppe bi nga dugal leen fa ne leen kat bi ma tiimee juróom ñii di tànn yow mii yaa ngi nii maa ngi janoo ak yow yaay diw xam naa ne yaa nangam ak nangam waaye nag duma la tànn ndax nangam ak ki nangam ki nangam waaw yow mii yaay diw ba mu jeex nga jël ki ngay tànn ne ko tànn naa la maa ngi def sama borom seede ci ruq bi ma nekk ne laa ilaha illallah sama réew laa jël teg ko ci say loxo yow bi nga watee ba génn jàppal ne fal nga ko bu faloo yow fal nga ko bu faluwut yow fal nga ko sa jaan wàcc na yow keccat la ci loolu nga ci man léegi nag dangay dem ñibbi te toog moo tax su ma déggee ñu ne am na ñoo xam ne dañ leen di fay wala dañuy jënd seeni kart jox la xaalis ne la wateelal diw loolu sax xajagut ci sama bopp bi waaye bu dee am na moom ku ko def na yëg ne daa mel ne dafa jaay boppam daa mel ne daal dafa yóbbu boppam ca marché ba dem fu ñuy jaayee ay nit mu waxaale njëgam ba juboo ñu fay ko mu jaay boppam bu bu laajaatee xelam dana xam ne moom mii <tsk> lim def tuuti na lool wala daa jaayum réewam waaw daa jaayum pajam daa jaay atteem daa jaay léppam jëru ko jëru ko même bu fekkee da nga koo nar a wateel te mooy lu ñor bu la naree jox xaalis mu indi ak ger bàyyi fa xaalis ba te dem wateel ko bu fekkee da nga ko bëgg a wateel li ngay def daal teg ko ci programme te xam ne yow xaaroo ci moom lu mu la defal direct mu daal di ñëw ci yow di lu muy làmb ci poosam jox la mu dugg ci say poos waaye njariñ lu ñëpp bokk moo tax nga di ko tànn jëm ci moom moo tax bu ñu xamee baatu responsabilité li muy tekki almasuliya ca dëgg-dëgg xam ni nga xam ne noonu la yaatoo ak xeet yi nga xam ne moom la am yépp danañ ci gën a bàyyi xel moo tax buñ jëlee responsabilité bi dox suñu diggante ak suñu borom subhaanahu wa dañuy xam ne suñu boroom moom jaamu gi ko jaam ñi di jaamu du ko jariñ dara buñ ko bàyyee bañ koo jaamu it du ko wàññi dara maanaam mhm. ñi gëm yàlla di jaamu yàlla yokkut yàlla dara ñi weddi yàlla won ko ginnaaw ne ko yàlla duñ la jaamu ñooñu wàññiwuñ ko dara nga xam ne topp giñ koy topp du yokk ca nguuram ga weddi giñ koy weddi du ca wàññi dara waaye yow mi koy def yow lay wàññi yow mi koy def yow lay wàññi moom buure na la muy buure ba noppi te du dañ di buure nag moo tax sax mu ne woon yéen yéen nit ñi yéen ñëpp a ñàkk li muy tegtale mooy soxlawuma ci yéen dara yaa ayuhan naasu antumul fuqaraahu ilallahi wallahu huwal xaniyul xamid waaw suñ boroom ne yéen nit ñi yéen ñëpp a ñàkk waaw yéen ñëpp ma yittewoo loolu lay tekki yéen ñëpp ma yittewoo yéen ñëpp a yittewoo yàlla li muy tekki mooy yéen ñëpp ñàkk man nag maay ki nga xam ne maa woomal waaw maa sant sama bopp kon ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo soxla suñ boroom muxtaajuuna ilay fi jamii xarakaati wa sakanaati wa huwa alxaniyu anhum bi zaati ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo aajowoo suñ boroom ci mboolem suñuy yëngu ak suñuy dal moom yàlla nag mooy ku doylu ku oomal ki nga xam ne moo wéer ci koom teem ga ak doyloom ga wahdahu la sharika la wa huwa alxamidu fi jamici ma yafaluhu wa yaquluhu wa yuqaddiruhu wa yusarixuhu borom bi subhaanahu wa taala noonu kon kooku dafa am responsabilité bu dox suñu digganteek moom ci wàllu pas-pas mooy ñu vérifier waat suñu pas-pas lan lañu fas suñu digganteek suñu borom waaw mbokk yi nañu xoolaat suñuy fas fas léeg-léeg di ko defal mise à maanaam di ko yeesalaat waaw lan lañ fas suñ diggante ak moom hmm. juróom benn yi nan lañ ko fase juróom benn yi mooy nan lañ gëme yàlla ñu xool ko bu baax nan lañ gëme malaayika yi nan lañ gëme téere yi yàlla wàccee nan lañ gëme yonent yi nan lañ gëme alaaxira nan lañ gëme dogal bu neex ak dogal bu naqari buñ nee nañ gëmee yàlla ñu ne ndax yàlla mat nañu kilifa moom mat na kilifa waaye ñun nag ndax doyloo nañ ko def ko muy suñ kilifa ci lépp ñu xool ngëm-ngëm boobu ak lay aju ci ngëm lépp laaj ko sa bopp ndax ni nga ko fase noonu la walla déet malaayika yi laajte leen ñu wax la ñooy ñan ñu ne la ay jaam lañ ñu yàlla bind ci ak leer wax la wax la wax la nga gëmee ko noonu gëm ne ñu am la téere yàlla wàccee gëmal ne wàccee na yépp waaye bi ci mujj ñeen ñeel la muy alxuraanul karim sa digganteek moom nag na rafet gëm ko mooy lu alxuraan rëdd ne bul ko jege gëmal ne yàllaa ko wax kon bul ko jege mukk lu alxuraan rëdd ne bu la ca kenn jiitu gannaaw gëm nga ne yàllaa ko wax bu la ca kenn jiitu wa rusulihi nga gëm yonent yi alayhimu salaam doo ci weddi kenn doo ci weddi kenn waaye gëm leen mooy luñ la ne yonent bee ko wax sallallahu alayhi wa sallam jooja wax doon wax joo gëm ndax wa maa yantiqu anil hawa gëm alaaxira te mooy gëm ne am na beneen bis am na geneen dund gudut gii kon bul yàq googa ndax gii boo gëmee ne danga ca dem am na yu bari kenn du la ca seen waaye nag nga gëm dogal dogal gëm ne am na luy am loo xam ne mënoo ci dara borom bi subhaanahu wa taala moo ko dogal moo ko dogal léeg mu doon lu neex léeg mu doon lu naqari ci yow loolu warteef la woo xam ne dafa war ci jaam bi mu taxaw ci yooyu setantal yépp ak yi nga xam ne moo ci aju moo ci aju ci ay masala yi nga xamante ne masala yi pas-pas la nga xam ne day delluwaat ci pas-pasu nit ki am na yeneen yoo xam ne day delluwaat ci jikkoy nit ki mu wattonte ak yooyu te looloo koy yóbbuwaat ci ponk ci lislaam yi juróom mhm. taxawal julli joxe asaka ginnaaw baati seede yi woor weeru koor aj màkka waaw kay yooyu yëpp digganteem ak boroomam subxanahu wa taala daf cee am euh, lu rëy loo xam ne da koo war a sàmmoonte ak moom te mooy góorgóorlu ci pas-pas yi nga xam ne moom la fas walladina aqadat aymaanukum fatuuhum nasibahum euh, lu ama am solo la kon responsabilité day dox diggante nit ki ak boroomam day dox diggante nit ki ak boroomam mu gëm ko rek te bañ koo weddi wa man yakfur bil imaani faqad xabita amaluhu wa huwa fil axirati min al xaasiriin yàlla nee na ku gëm ba mu yàgg nga weddi sa jëf ja nga jëfoon ba ngay gëm lépp yàqu na te ëllëg yowmal xiyaam ci ñu perte ñi ngay bokk wala xad uxiya ilayka wa ila alladina min xablika la in ashrakta la yaxbatana amaluka wala takunanna min alxaasirin yàlla nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam lii ma lay wax waxoon naa ko ña la jiitu li ma leen waxoon mooy saa yoo fi bokkaale sa jëf yi yëpp ay yàqu te dangay bokk ci ñi nga xam ne dañoo perte te dangay bokk ci ñi nga xam ne dañoo perte moo tax euh, jullit bi war naa xool saa su nekk lan mooy ak mbaax hmm, lan mooy ak mbaax mu góorgóorlu ca mbaax suñ boroom nee na du jublu penku walla jublu soow hmm, déedéet laysal birru laysal birra an tuwalloo wujuhakum xibalal mashriqi wal maghribi ñu ne ko lu di mbaax mu ne mooy man amana billahi wal yawmil axiri wal malaikati wal kitaabi wan nabiyin noonu la ko toppoo wa aatal maala ba aayee jeex ndeysaan yàlla nee na ak mbaax daal du jublu penkook sow ñu ne ko lu di mbaax mu ne mooy gëm yàlla gëm alaaxira gëm malaaka yi gëm téere yi gëm yonent yi kon al imaan a ngi noonu amana rasulu loolu la loolu la jàngale gëm leen yonent yi bi maa unzila ilayhi min rabbihi ak téere yi wàccoon ci ñoom mhm. loolu yàlla nee na ñi gëm moom gëm nañ ko waaw gëm nañ ko te nag buñ weddi benn yonent ci yonent yi buñ leen tàqale laa nu farraqu bayna ahadin min rusul noonu it la ko suñ borom waxee ca yaa ayuha alladina amanu aminu billahi wa rasulihi walkitaabi alladi nazzala ala rasulihi walkitaabi alladi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi al axiri faqad dalla dalaalan baida allahu akbar yàlla nee na ee eh, yéen yi nga xam ne dangeen a gëm ñu wuyu waaw bu ko wootee nag xoolal ba xam da nga bokk ci ñuy wuyoom déet mu ne gëm leen ma man yàlla wala wóolu leen ma waaw gëm leen ma gëm leen sama yonent yi gëm leen téere yi ma wàccee ci yonent yi gëm leen téere bi ma wàccee ci yonent yàlla muhammad gëm leen téere yi ma wàccee ci yonent yi ko jiitu képp koo xam ne weddi na fi yàlla weddi malaaka yi baa mu weddi téere yi wala mu weddi yowmal xiyaam kooku sànku na sànku gu metti waaw sànku na sànku gu metti kon gëm responsabilité bu rëy la hmm, responsabilité bu rëy la doy na sëkk aw waxtaan bu ñu ñëwaatee door a ñëw ci beneen ba ca topp moo tax alam taalam an allaha yaalamu sama maa fi samaai wal ard inna dhalika fi kitaabin inna dhalika ala allahi yàlla nee na gëm leen waaye nag xam leen ne man xam naa waaw ndax xam naa xamu leen ne man yàlla yëg naa liy xew ci asamaan lépp yëg naa liy xew ci suuf yëpp te loolu yëpp enregistré naa ko ca téere ba te enregistré ko lu yomba yomba yomb ci man la responsabilité la mbokk yi sa digganteek sa boroom kon nga njëkk a gëm gi nga ko gëm noo ko gëmee noo ko jàppee ak nooy xoole sa borom door a ñëw nag ci sa digganteeg njaboot gi ak sa digganteeg euh, société bi yooyu yëpp danañ ci ñëw insha allah boo demee ci wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam li ñëw ci bunt boobu ci ay euh, nettali ay ahadis yu wér yuy tegtale euh, responsabilité boobu ak ngëm googu bari na lool am na ci bu siiw boo xam ne Omar ibnul Xataab radiallahu anhu nekkoon amirul muminin bu jamono tollee fii ba ñu tànn njiit xel yépp dem ci njiit yi bi alayhi salaatu formé woon bu jamono tollee fii ba ñuy tànn njiit xel yépp day dellu ci njiit yi nga xam ne ñoom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam formé woon Seydina Omar mii radiallahu anhu ca la bokk seydina abu bakrin saddiq mi njëkk a wuutu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca la bokk cey babacar mbay ma njëkk a gëm seydina abu bakrin saddiq bi biñ ko tànnee ne ko yaa wuutu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu nekk xalifatu rasuul waaw jiite jullit ñi daa xëy rek jëlub goppam jëm tool nee nañu waaw nee nañu daa xëy rek jëlub goppam jëm tool saaba yi toog ca pénc ma seen ko muy waaxu wéy ñu ne waaw président fu mu jëm ci misaal ñu ne ci misaal tey ñu ne woon dañoo fal président fekk mu nekk ab commerçant ci misaal mu xëy suba jëm Sandaga ñu ne waaw fu mu jëm ñu ne moo ne bitigam bala jëm de waaw président foo jëm mu ne sama sama bitig laa jëm sama tool laa jëm lu xew mu ah du dem wuti lu ma dundale ci sama njaboot ñu ne ko déet comme ñoo la fal nag bëgg nga taxawuñu day am lu ñu war ci ñun ñu koy génnee suñ biir di la ko jox ndax allahu akbar seydina omar ibnu xataab radiallahu anhu buñ ci duggee ci misaal ko ci jàngale ko melokaanam ci nekk njiit da ngay mujj sax am kersa waaw dangay mujj am kersa ci léeg-léeg suñu montre yi ni mele ne lu delluwaat ba ca cat la te demoon ba ca kaw waaw nga xam ne wallaay suñu jëm ca kanam dana jafe ndax modèle yi tax ñu war a jëm ca kanam dañ leen a defut ay modèle waaw ndax ñun ñu baax ñi euh, doyuñu ñu ay référence doyu ñu ñu ay référence tey ñi politique di laaj réew mi ñi ci bari walla ñi nga xamante ne ñoo ne ci laf moomu dañoo jàpp ne ku baax waru cee nekkandoog ñoom te moo ne ñoom ñi ci nekk nag bari nañu baax lool bari nañu baax lool ñu yor ay jikkoy sang ñuy góor góorlu ci lépp waaye léeg-léeg ñu xajamal ko ba ku baax du ci bëgg a dugg te nee nañ kat loolu moo war a jagal àdduna ba àdduna lépp baax ma ne kon nan lay baaxee waaw nan lay baaxe boobaa bu ñu jëlee nit ku baax diine ci politique li Machiavel waxoon du caagi ne dëgëral diine tax du caagi ne dëgëral diine tax waaye diine léeg-léeg mu nekk jumtukaay boo xam ne politique da koy jël ngir maanaam politicien bi daf koy jël ngir dëgërale ko ak nguuram waaw ngir dëgërale ko ak nguuram ni nga xam ne day dem leb bitim réew alal waaye leb gi du suqali aw askanam a tax waaye dëgëral ab système am moo tax noonu itam lay jële diine ngir dëgërale ko ak nguuram waaye du dëgëral diine moo tax moo tax wallaahi boo xoolee suñu réew ni mu amee jàmm ak ni mu ràbbaloo fan yii ñuy si mbirum diine waaw ñuy si mbirum diine du ma sax wax sax diine dëgg-dëgg ndax ñun léeg-léeg dama naan ndax diine ñor nañu wóorut waaye tariixa moom bari na ñum ñor lool bari na ñoo xam ne tariixa moom lañ gën a fonk ci diine am na nag euh, bu ma nee bari na rek tàgge boo gis am na jàppal diw wala am na ñoo fa war a ba mhm. du ñëpp ñi ëpp lay tekki leneen nga gis ñuy xaaxarante ci suñu biir te jëru ko amul benn kàndidaa bu war a jaral benn taalibe mooy dal ci kaw moroomum taalibeem amul benn kàndidaa bu war a jaral ab taalibe wala ab sëriñ walla nitu tarixa muy tudd tarixa moroomam politique jërul loolu gis nga lii ñuy def nii ñoom ñëpp kenn jëru ko ci nag kenn jëru ko ci ku ne sa bopp dalay dalaa war a dalaa war a doy te ñoom mag ñoo ñu tubaab bi lañ jamonoon teeloon nekkoon ak tubaab bi waaye doonoon ñu dëgër doonoon ñu taxaw doonoon ñu sàmm doonoon ñu fegu ba taxawal lii ñu taxawal ñiñ fi bàyyi woon nag bàyyi leen fi ñuy doxal nekk feek ñiy laajum réew di jaxasoonteeg ñoom kenn ku ne daan nga dugg ci yëf léeg-léeg nga ànd ci ak ñoom léeg nga jël position waaye nag doo jël sab tariixa fénq ko ci tariixab ka ca des faluñu kenn faluñu kenn candidat buñ mën di fal faluñu Sëñ Tuubaa mu nekk président candidat buñ mën di faluñu Alaaji Maalik mu nekk président seen ngóor la rek suñu fal ngóor sa bu nee taalibe la boobu murit la mu wax moom la engagé la cay jariñ moom lay jariñ du la jariñ yow dara du la ca jariñ boo ko falee nag lu mu def ci réew mi te lu baax mu jariñ la lu mu fi yàq mu wàññi la ngóor si bu nee la eh, man mii kat taalibe tijaan laa ngóor si nag maa ngi jublu ku man di doon rek bu nee la taalibe tijaan laa tijaaneem googee même yow boo dee ab tijaan ba nekk mu xaddam tijaaneem googee jëriñu la dara moom lay jariñ la ko cay jariñ bu ko matalee te rafetal ko waaye itam bu ko sàgganee la ko cay lor moom lay lor yow la lay lor mooy ñu fal ko mu sàggane réew mi wala mu ñàkk sàggane réew mi waaw waaye nag léeg ñun daal dañuy dañu nekk ay waye waye yoo xam ne ñu fooyee ñu def ñuy yomba yomba yomba yomb ba nga xam ne du ñu déglu suñ bopp ci suñu yenn taxawaay yi waaw du ñu déglu suñ bopp ci suñ yenn taxawaay yi bu ko defee loolu lim ñu yàqal kenn xamul nu mu toll moo tax ñi war a wax nañ wax artu waaw artu xam ne mbir mi du problème mu Touba mbir mi du problème mu Tiwaawoon waaye mbir mi Sénégal la Sénégal la waaw ñaari dëkk yooyu dañoo ne ci biir ñi dëkk yooyu ne ci biir te am fi solo lool buñ nangu mukk état yi wala boog politique bi jël tarixa yi def leen ay jumtukaay yu ñuy yu ñuy fénqalee ngir ñoom seen position yi bopp waaw nit ñi nañu ëpp loolu sa carte bi koo mën a wateel liggéeyaloo ci benn sëriñ léeg-léeg ñu ne sama carte bi danaa ci liggéeyal sëñ diw déedéet liggéeyaloo ko ci waaw carte yi booy watee da ngay xool programme yi ba jàpp ne moom bu fi nekkoon programme bii mooy programme bi dëppoo ak lim nekkoon nga wateel ko jeex na amul leneen bu fekkee da ngaa bëgg a méngóog moom bu dul lool na nga dem ak sa xelum bopp tànn ki nga xam ne moo la doy nga wateel ko te ne pat boo yeewut fitna xasoo kenn yëgal ne bég na ci yow waaye yàlla xam na ne ku bës sab audio wax dara ci nitu yàlla ku man di doon bu dee am murit nga yëgal ne sëñ tubaab bégut ca la nga def bu dee ab tijaan nga yëgal na Cheikh Sidi Hadji Malick bégu ca ma jàll sax ba ca Cheikh Ahmad Tidiane Serif radiallahu anhu bégut ca la nga def ginnaaw yaa ngi sikkal ku ñuy tudd di tudd borom bi subhaanahu wa taala ci loo xam ne kaccet ko ci waaw ci loo xam ne kaccet ko ci mag ña dem nañ tilka ummatun xad xalat laha ma kasabat waaw ñoom dem nañ yóbbaale nañ seen yëf seen jëf yu baax bàyyi ñu fi ñu war leen a roy ñoon royuñu leen nekkuñu ci lañ nekkoon murit boo xam ne bu ñu waxee mu ne man sëriñ bi nangam ku nar a def dara ci murit gi ci sama kaw ngay jaar te yow li sëñ bi waxoon ak la nga nekk yàlla yaali la sori nga sëñ bi lool waaye nag fu ñu waxee nga laxasaayu ne dangay ngay te yaay yàq lañ cay yàq lépp amul njariñ amul njariñ kenn mën mënta yàqal yàlla dara ndax yuriduuna li yutfiu nuurallaahi bi afwaayihim suñ borom nee na wa yaballah maa bañ kenn du ko fi fayee amul benn taalum mag ci mag ñi boo xam ne ci ñun kenn ci ñun mën na koo fay waaye nag ñun ñoo du def li ñu war ba pare di rey suñu bopp ci ay détails te jëru ko élection yu ne jaar na fi ca Senghor ak Lamine Guèye ba bërki dem moo mbaay ci Abdou Diouf ak Ablaye Wade ba bërki dem moo mbaay ci Abdou Diouf ak président Macky Sall tey jii bii bu dimaasee jàmm ay fan yu néew mu jàll ñu jàll ci leneen buñ ci yàq suñu diggante liñ seq moo ëpp loolu yal nañu yàlla boole sàmm